rahmatullah téléspectateur Equivox TV yi maa ngi leen di nuy di leen ziar fii ma taxaw nag mooy ad wala boog mooy terrain gaal gi fan terrain gaal gi fan Grand Yoff fan ci terrain gaal gi fi nga xam ne fi la ñuy bëree di fi tege ay làmb mbapat ku fi woote tey jax lu mu fi teg deux millions cinq cent moo tax nag ñu taxaw bu ngeen xoolee nii pub li ngay seen nii yëpp ay oto la ak ay nit boo xoolee baas gii nag boo gisee li tax ñu baas nii mbir mi parce que miir bi la ñu daane li ko waral yaakaar naa mooy BRT bi war a jaar fii pour dem comme cantine dañoo jege ñoon fii nag ñu yóbbuwaat mbir yi ci yoon yóbbu fole baas bi lool moo waral tey yàgg maar ñu war a ñëw fas fi yéen leen wan nag làmb mel ni gars na moon lañ làmb moo tax balaa may dugg il faut ma wan leen buntu bi li fi ne waaye lii xam nga kii mbaam la yàgg maar kii yàgg naa cee war yàgg naa koo omat man naa bay mën naa takkum saret gis nga saret bi mu àndal mbaama ngi nii mbaam mu góor nag laa lay wax mu ngi nii moom mbokk ci loo ne. maa ngi sant yàlla am na jàmm waaw am nañ jàmm tey miir bi daanu na ñu ñëw baas lii mu mel ni est-ce que sécurité bi fii dina yomb tey. waaw du yomb mais dañuy jéem rek xam nga ak làmb moom nit ñee ko namoon gars yi ñoo namoon làmb léegi dañuy négocier ak ñoom rek xanaa waxtaan ak ñoom rek ba keroog ñu koy defar noonu la demee. xalaat ngeen ne làmb ji mën na yegg te du am benn problème ak ak baas bi. incha allahu rabbi day yegg de. danañ bëre ci jàmm ak salaam bu soobee Serigne Bamba ndax sécurité bi du lii rek. fii yëpp daa am sécurité ci biir am nay police ñëpp a ngi fi taxaw incha allahu rabbi maar sécurité daa am solo nañ dem ci kanam maa ngi lay bëggee naka mu ndax tey mooy suñu deret waaw di suñu cosaan di dañ laa namm bu baax maa leen gën a namm koo namm namm na la dañ laa namm bay maa leen gën a namm bay ju am bàyyi suñu lépp ñëw fii tey barke suñ bamba kon kontaan naa ci leen ñaanal yow sax caméra maan yal na ngeen gudd fan maan ak wér mais yàgg maar xam nga lu jar wax balaa ngay dugg da ngay yor sa masque laal sa zel parce que nag nañ ci bàyyi xel coronavirus bi mu ngi ci dëkk bi te day rey lu la waay mën a wax moom ndaje mu mën a doon nañ koy sooraale takk masque laal zel boo amee thermoflash nga teste sa bopp xool sa tempérament fu mu toll nga door a dugg. seen naa naavi Paul Maurice numéro 2 maanaam ñii billet lu mu seer seer dañ koy jënd Paul Paul maa ngi lay bëgg. waa ñu ngi lay fay. mais Paul da ngaa ñëw taxaw ci bunt bi lu xew. waaw xam nga nag euh, ñëw woon wax dëgg yàlla namoon làmb ñëw nag tamit fekk làmb ji xaw a am benn difficulté mooy nekk euh, port yi xat na aussi te yaakaar naa làmb bi man suma xalaat bu gàtt waroon na mën a dem arène national xaw ma nag lan moo ko téye mais effectivement parce que nit ñi bari na te problème mu dugg daal instant bi moom la am vraiment moom la am waaw ñi ngi dagg billet yi toog mais amuñu foo xam ne fa lañ mën a jaar waaw fa lañ mën a. am na solo Modou Lo Junior. dellu si argaan sant rek. yow it da nga mel ku seetaan si woon de. waaw dañuy ñëwoon seetaan mais lamb ji fii xaju fi waaw lamb ji moom fii moom du wax dëgg yàlla du lambi deux millions cinq cent moom du lambi deux millions cinq cent gis ma loolu moom non kii nag ma lay wan kii maar fixeel ma ko caméra bi ku am solo la ci lamb ndax moto yi oto yi ñëpp moo leen di ne leen gaare leen fii yaa ngi dégg mooy fixé ñëpp ne leen gaare leen fii tey faw ma ñëw nuyu ko delloo ko ziar maa ngi lay nuyu turandoo parce que xam naa sa tur Babacar. dëgg la Babacar ñi ngi lay sant di la gërëm ah, di wax sa liggéey rafet na man xam naa fan nga commencé ba si lii nga nekk nii am na loo xam ne boo ko jàngul doo ko tari. yow yaa ma yar waa te lii nga nekk nii da nga ko jàng moo tax boo ko taree du ñu bett ndax sa écurie bu mag nga jógee nekkoon si écurie bu mag am loo fa jàngat ñëw dugg si lii. kon loo wax si làmb ñun bu ñu toogee tele gis la dañ lay nawloo ndax xam nañ bu baax li nga jàng tari nga ko ñu ngi lay ñaanal gudd fan di la ñaanal wér dina ñaanal nag tele bii nga nekk moom yàll na yokk jëm si kanam yàlla ko yàlla ful ba mu bokk si tale yi bokk ci kaw a ci kaw bañ leen di tudd si monde entier. amiin moto yi nii liggéey bu nu muy demee yàgg moto yi. waaw Babacar ni ma xamee rek bi ma si nekkee ak ba ma si nekkee mooy nit day ñëw indi alalam nga gis ko mu sànni alalam génn di laajte fan la ñun nag ñu am suñu volonté bopp ay responsable lañ ay borom kër lañ bu ñu ñëwee dañ naan la gaareel jox la ticket bu ñu la joxee ticket nga fay parking bi. ñu assuré sa scooter nga seetaan ak xel mu dal boo génnee ñëw leen leen nit bàyyi fi caabi muy bu oto bu scooter boo demee ba jaax la làmb ji tas nga ne tafu nañ ma li ngay njëkk def mooy da ngay daw ñëw si man nee ma sama caabi wala la ma fi gaare woon maay la rocci naa ko ba def ko sama nafa na sa xel dal nit ki nag booy lekk dara ngir ak sa njaboot na fekk Babacar boo koy liggéey na lew bu sellee rek doo si am tiitange moo tax. ñoom ñaata la ñuy fay. waa téeméer la. moto bu ne moto bu nekk téeméer oto 1000 francs la. yow rek ko seq am na ñoo ko bokk. naa équipe ku si mel ni Serigne mi sama xarit la tey bu ma amuloon ba ñàkk ba ñàkk moom rek bu ñëwee comme élément doy na ma yàlla nag day def nag amuñu si benn jafe-jafe ndax ñu ne gaa yi xamante nañu dañuy dem ba séq ay tëj kóllëre suñu diggante ndax lu koy waral mooy dañuy dépassé liggéey bi kon àddina loo nekk na rafet nañ rafet na rafet lii nag réew mee ko namoon di wax président na sedd te bu gënee nooy gën a sedd mu gën a am ndam si kàttanu yàlla jërëjëf naa la ko Malick a ngi nii toog Sitor a ngee toog léegi coow li jeex na coow li jeex na léegi coow li jeex na. waaw jeex na tak jeex na tak jàmm rek waaw ginnaaw ay jàmm waaw. ndeysaan Sitor Sitor a ngi ci téléphone bi arbitre yi ñëwaat nañu ndeysaan li rafet na monsieur l'arbitre chrono baa ngi. yàgg maar coow li jeex waaw moom la moom la ñuy laaj moom la ñuy bëgg Sénégal waaw namoon ngeen arbitre namoon ngeen soufflé yi namoon ngeen soufflé gi waaw namoon nañ ko comme mbër yëpp waaw bërëb nañ ko namoon waaw ci suñu dërëb la nekk waaw ñu ngi ñaanal ñëpp jàmm nag waaw licence yaa ngi cey yàgg maar Malick ay bind Brésil ngi taxaw xam na léegi ñu wax leen ñaata mbër ñoo bind du mën a ñàkk pardon baal ma ak yaa ngi nii toog xool amateur yi yaa xool gaa ni ñu tooge ndeysaan cey làmb cey làmb ndeysaan cey làmb yaa xool mbaya nga groupe bi waaw waaw ndeysaan maa ngi lay bëggee jaajëf Palma. ngi nii waaw mais. mais Babs léegi da ngaa nice de. <laughs> Equivox su day caaxaan. mais Babs xanaa da ngaa <laughs> ñaanal ma laal deuxième ma ma leer gi leeru deuxième nga restant bi nii loolu nga wax ni barki Serigne Bamba boo ko ñaanee mu ñëw non yaa ngi biree instant bi nii saan kontaan ci yow loo di la namm rek namoon nga lii de barki yëlante bi namoon nañ ko trop trop trop trop trop vraiment quoi mhm. fiit min nga ko bu baax tey noo dikkee waaw ñëw rek ñëw def li ma naan def ànd ak sumay mbokk ñu yàpp ma ñëw pour compétir rek ñun compétir la ñuy def ndax lii suñu deret la nekk bu amoon ba ginnaaw Kédougou wala ba Tamba wala ba Casamance wala ba Gambie bu ñu amee temps dañuy dem wane ci suñu bopp ndax deret la nekk wa mais maa ngi dégg sa combat Gambie dëgg la. waaw dëgg la waaw dimanche. dimanche bii di ñëw combat dóor. Oh, non simple la gars yi dañ no non Zénith duñ ko jox foofu dóor dañ ko jox simple quoi. Mhm. waaw. tàmmoon ngaa yëngal nag. xamoon nga xaw a kii nii rek wàcc wàcc rek ñëw tey fekk ñu yëngal ba toog mais tey lamb ji li mu laaj a bëri faw nga yëngalal ma ci kanam dañ na ma na nga daaj dal lamb ji dal la laaj ndax xama rek yow xam nga nu mu demee yàlla na yàlla dooli suguró ana seex seex bi mu ngi fi mu ngi si jàmm bu baax a baax a baax di ñaan yàlla na jàmmam yàgg waa bam si yow di kontaan ci yow bu baax a baax a baax jërëjëf jaajëf ok merci mu mel ni ci mu kaayam a ngi nii toog yàgg maar yaa xool gars yi ni ñu tooge yaa ngi nii toog Abdou Maye borom marché asalam gars yi dañoo bëggoon dañoo namoon làmb ñii Sénégal ñoo namoon làmb waa réew mee namoon làmb maa ngi bëggee ñëpp di ziar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm mu mel ni yéen ñëpp a namoon làmb fi mu ne kontaan ngeen. kontaan nañ bu baax a baax kontaan nañ bu baax a baax. lii daa manqué réew. waaw vraiment dafa manqué woon réew mi kontaan nañ tey bu baax a baax a baax. Abdou Maye borom marché sama gars maa ngi bëggee ñëpp bëggee naa leen yéen ñëpp ah. namu naa la de Babacar maa ngi. ah mais yow tamit tey kontaan nga de. waaw lool sax lool foo ko natt weesu na dañoo namoon li bilaa wala. vraiment ren. non yaa ma bilaa di ko jaale papam coon suñu papa coon. bilaa walaay. bilaa naa ko ñaanal. foo bindu luur wala lese. luur lu doy lese. lu may doy lese. maa ngi ci fas yéene koo tàngal mu saf sap suñu borom maa ngi ñëpp yàlla mooy ma jël affaire bi kontaan na waaw gis nga. ka daanu yàgg kan mooy njëkk a kan moo fi njëkk kan mooy njëkk a daanu léegi kii lañ ko dénk loolu la yàlla dogal président maa nga dë président maa ngi lay ziar. maa ngi lay fay. am nga jàpp. sant yàlla bu baax a baax. ñu dénk la li simple ci CNG bu bees tey monde lamb affaire bi mel nii sa xol xanaa sedd na loo yëg. am mbégte lool sant yàlla ndax su fekkee ne feebar bi mu ngi fi ñu mun a waxtaan avec le ministre des sports. mu nga waxtaan avec le président de la république ba jox nu autorisation pour ñu tëgg xam ne lii mooy suñu cosaan demuñ ko jéegaane fen ñu ngi koy gërëm di remercier le ministre des sports di remercier mon président Bira Sène bu kaw la ñëw seet saat di làmb ji ndax suñu commencé ouverture commencé ko ak lutte traditionnelle loolu ndam bu rëy la gis ngeen public bi ak discipline bi ñu àndal kon nag dama mën a sant Jax depuis le matin maa ngi fi ak moom di organiser ak superviseurs yi demuñu añi pour la réussite de cette manifestation kon ñu ngi tam itam ñu ngi leen di leen sant comme ni ma ko waxee sànq rek le président Birane Sène dafa xaru ñu ubbee làmb ji lu traditionnel parce que mooy suñu cosaan waaw demuñ ko jéegaane fen ñu ñoo ko moomal suñu bopp kon maa ngi koy gërëm ko sant bu baax a baax di gërëm lépp ñoo xam ne ñoo nekk ci CNG ak ñu nekkul ci CNG ñun ñëpp sénégalais yi ñu ngi leen di gërëm di leen yow tamit nga bokk ci làmb rawatina làmb simple tey làmb ji tëjoon ubbi nga ànd ak président Manga 2 ban yëg-yëg nga am ak ban message ngay joxe waaw euh, làmb ji nag yéen lañ ci yaakaar yéen ñooñu fi mu mu nekk nii yéen lañ yaakaar ci làmb ji nouvelle équipe la boo xamante ne li ñuy liggéey bu buggee yéen a koy jàllale donc suñu suñu réussite lu bari dafa dépendre ci leen li ngeen def tey neex nañu parce que gisuñu fi benn télévision bu doon lutte avec dóor ne ngeen ni télévision yëpp ñëw nañu mais yéen en permanence yéen a ngi nekk ak ñun guddi ak bëccëg loolu mooy suñu premier contentement deuxième contentement mooy da ngeen xam lamb comme ni ñu xamee lamb di leen di gërëm jërëjëf Malick maa ngi lay ziaraat maa ngi delloo ziar Babacar ñaata mbër ñoo bindu ci léger bi ak lourd léger bi am nañ juróom benni fukki mbër mo juróom benni fukki mbër léegi poids lourd bi ñu am ñaar fukki mbër ak juróom ñaar waaw aa miisu léger bi ku ko jël ñaata ngay am miis bi ku ko jël euh, di nga am un million cent mille ci poids lourd yi poids léger ku ko jël dina am sept cent mille léegi ñaari demi-finale yi ku nekk am cent mille léegi ci demee ci poids léger bi nag ki gagné dina am deux cent soixante quinze mille ki daanu am cent soixante quinze mille ñaari demi finale yi am vingt cinq waaw. mais président maa ngi lay ziar. delloo ziar. ci loo ne. ça va am nga jàmm. waaw ñu ngi sant. mais président xanaa léegi kontaan nga. ah. ma ne président xanaa léegi kontaan nga. waaw mais lii lañ bëggoon ah lii mooy jàmm quoi. waaw lii lañ bëggoon lii mooy jàmm kontaan nañu waaw alhamdulilah. daal tey ànd ak sa ngeen ñëw toog si taabal bi. doxal teg mbiri ci yoon mu mel ni loolu moom ngeen bëggoon te am ngeen ko. waaw loolu loolu rek euh, wone na lu bëri parce que tey boo xoolee taabul bi ak ñi fi toog yëpp wane na ne vraiment jàmm rek a gën ci réew daal waaw xam nga nekkoon nañ ci ay difficulté mais loolu yëpp léegi weesu nañ ko euh, dañuy dolli di sant yàlla rek waaw. kontaan ci yow ami ñëwul. ami ami lu tax du seetaan ami dina ñëw. ah dina ah. waa géew bi namm nañ ko. dinaa ko indi. mbër yaa nga ca. ci loo ne. sëñ maa ngi nii. maa ngi sant yàlla bu wér. caaka moon nga lii waa waaw namoon naa ko bu baax. mais alhamdulilah comme bi mbas bi jógee boo ñëwaat organisé waat lamb ñu ñaan mu jaar fii dem ba faw lamb ju fi quoi. ay dina yomb. non ñun tàmm nañ lii. waaw. waaw waaw comme. actuellement foo toll waaw ñoo ngi regroupement. waaw ñoo ngi liggéey lu ñu war a liggéey boobu demuñu regroupement tamit waaw. waajal yan championnat. waa qualification jeux olympiques incha allah waaw. waa fu ngeen koy defee fii Sénégal wala. non allah waaw. ngeen di dem. xamaguma exactement nag mais xam naa ne compétition bi yàggatul waaw. fu ngeen di regroupé woo. Euh, ba xamaguma mais ñoo ngi amitié pour le moment waaw waaw. oui kontaan ci yow. merci beaucoup Caaka Faye Ngongu ndeysaan international la day défendre équipe nationale couleur nationale lay défendre bëgg naa la ndeysaan yàgg maar Cheikh Tidiane mais Cheikh maa ngi lay ziar Cheikh bëggu wax tey Cheikh ilaha illallah Boy, kati lay da den wa bu la ndeysaan yàgg maar yaram taw na seex jooy na alfa jooy na mais góor maa ngi lay. delloo ziar. muy jooy. jégal ma ko jégal ma ko. daan nañ la daan nañ la jógal sangu ji daanu nga màcca ne na ko daan nañ la waaw màcca maa ngi lay bége dinañ ko daan dinañ ko daan mbot mu bañ booy ba lum mu bëgg a def ak moom génn daw na këf loxo ba dañoo mën a bëre xale yi dañoo mën a bëre yàgg dañuy bëre ba dugg boîte vocale gis nga tànk ba lay wër mu bañ yokk sukkër bi wala lan da lay daan laa ilaha illallah bëre ba dugg waat vocal cey mbayang moom waaye cey moomoo ngom man de bii diyoo waaye Cheikh Tidiane ñang jooy na tañ jooy ndeysaan cey lit simple daw na jël ko jàppante nañu de da ko bëggoon tëgg plaqué taw ak ba bañ freiné ko ba pare sol ko ca kaw cey làmb lu mu ko bëgg a def takkan nañ la de mbaa du la yokk mbala mu sukkar bi bu la sentiree mbaa di ci génn te nga mooyu sentir googu dina la daan ay boobu jël mu bañ yàgg maar booy faye ngi mais loon waay sant yàlla rek am nga afi waaw sant bu baax a baax a baax ko yàlla def amiin yaa rabbal ana madam mañ ak bébé ñu ngi jàmm ñu ngi gàlle mais tey daa mel ni lii namoon nga ko waaw yàgg na namoon nañ ko ndog ndog la woon commencé nañu ñu ngi sant yàlla baax a baax di ñaan naan lii yàlla bu mu fi di am rek wala ba mu fi am mu gëj loolu daal da gëj loolu daal boo gisee Thiaka Faye gis Cheikh Tidiane gis général Malika ñoo ñëpp day ku poids ko comme yow est-ce que mën naa yomb ci yow tey non ñu bàyyi lépp yàlla suñu borom en tout cas liggéey naa loo xamante ne am naa yaakaar ne mën naa jëflante gars yi daal waaw. pare nga nii am naa yaakaar ne am naa lu mën a ci kanam. waaw ci kanam incha allah. yàgg maar seex biram mbisin seex biram mbisin seex à biram à waaye làmb ji loo ci mën a dégg xam naa ne fii ñu ko def ndax place am la ndax mbooloo mu bari terrain bi miir bi daanu na sénégalais yi namoon nañu làmb seex daw na jëli ko biram bañ seex daw na jëliwaat biram bañ ndeysaan daw na jël ko eh Cheikh Tidiane daan na ko laa ilaha illallah oh Cheikh daan na ko dafa daw jël ko laa ilaha illallah eh rajaxe rajaxe Ibou Ndiaye rajaxe Ibou Ndiaye da koy daan ay waay ay waay takk na ko sukër bi da koo bëgg a jaay doole rajaxe mbaa duñ la rajaxe rajaxe mbaa rajaxe buddi laa yee daan na ko doole doole doole doole xool sa waay li mu téye cay làmb am ngeen ci jaaxle de wala waaw xaw nañ ci am jaaxle nag xaw nañ ci am jaaxle mais lii bettuñu betuñu parce que ouverture làmb vraiment ak terrain gaal gi ak gars yi ni mu namme lamb loolu tax affaire bi deme nii mais vraiment moom lii moom bettul amateur yi moom xamoon nañ ne lamb ji moom nii lay demee moom xamoon nañ ko moom ok merci beaucoup Babacar merci maa gën a kontaan ci yow merci ndeysaan yaa mbër yaa nga wàcc ak Cheikh combat bi da xalaat naa moo nar a njëkk a jeex Ibou Ndiaye ak bi cey gis nga cey seex ak caaka hey daan na ko da ko doole doole doole caaka final. waaw. yaa général Malick. waaw sant yàlla rek. li ngeen final lu bari na. bari na waaw finalu nañ lu bari. ku ëpp ay victoire. man maa ëpp ay victoire mais maa ngi ñaan yàlla amaat victoire tey. tey loolu waaw. waaw. Zé Thiaka ne lim la daan bëri na la wax ne na tey day daanaat. waaw li ma ko daan ma nit bëri na de waaw. tey kuy daan. tey maa ngi ñaan yàlla may ma ndam. mais tey ni nga ni ba dem final moo garaaw da ngay da ngay da ngay ñëw rek teg ci birig bëre. bilaa xam nga loolu lañ ma xamee quoi lu ma am ci làmb looloo ma ko may kon loolu mënu ma koo bàyyi dafa nekk ci man sama deret la quoi. Mhm. kon ci kanam. waaw léegi léegi waaw. gis nga génne ay ndaanaan. ndaysaan yàgg maar daan naa la ko wax bu tey la dimanche mbër mbër nag dimbali ñu ngir yàlla ah mbër tey la dimanche 21 mars 2021 général Malika Boy Faye fan terrain gaal gi ak kan jaks 2 millions 500 mbër dimbali leen ñu woow oo ndeysaan général à gauche Boy Malika Boy Malika Thiaka à droite Thiaka lu ñuul général yor ngemb lu weex jiital kiwisaar bu vert blanc noir boo xoolee Thiaka Faye tey moo daan Cheikh Tidiane Niang demi-finale général a ko par avertissement daan na fi Boy Faye moom Obali moom Thiaka Faye moom général ndeysaan ñuy nuyu képp ku ñuy suivre ci Equivox TV yi soppe ñoom Ndongo Fall Italie ñoom Basoka États-Unis Rimka Couture Touba Sandaga waa ndeysaan Assane Fall Global Textile ca Parcelles Assainies waa Petersen Babacar bu móot la ma ñoom jib seen ñoom jigab fane mbayeng luum maa ngi nuyu képp kuy soppe Babacar Tuuti yaay sar ci Espagne ana Serigne njur ana Khadiros ñi ñëpp ay soppe lañ waaye ana Fallou ñaa taal bi suñ Fallou ba ca Maroc maa ngi bëgg képp ku may si ci Equivox TV di ñaanal di leen wax ne ngeen xaar ëttu ëttu maam bilaay ëttu a nar neex ak Equivox wallaay lu leer laa leen wax daa nar a neex ëttu xale ya ko seq xale yu jigéen yu feros yu fësën ñoom Ami Diouf Ami nay ndeysaan journaliste bu mag boobu doomu gaynjaay Ndiaye ana Oulimata Seck laa ilaha illallah ana maam jaara ba tey ñoom ñëpp ci biir fu nar a neex wala émission bu nar a neex ak yeneen ak yeneeni i émission lépp ci Equivox TV waaye bu leen fàtte samdi Fallou Ndiaye teg na mis bu am doole ca fa nga xam ne mooy démba ju arène nationale Fallou njaay ma ne ko tàmm nga looñu yaa yóbbu woon Gàmbi ak waa Ndiaye production waaye Fallou Ndiaye nuyul ma Tafa Mbeng téléphone la ma may Tafa Mbeng billaay moo baax bu bees teq dajib ci paquet waaye yàgg maar ku la defal lu baax nga wax ko kenn du Tapha Mbeng téléphone bu bees teq la ma may waaye tay mayo bi ma sol ci Djiby Dia ca Sevilla moom a ko jox Sergio Ramos capitaine bu mag bi ci àddina bi eh jël na ko la ilaha illallah eh waaye général lu mu def nii ay général Malika waaye général Malika général ko wax yàgg maar dama la ko yàgg a wax. kii li ma gis tey mu di ko bëre kii li ma gis mu di ko bëre tey. waaw waa lii lan la lii mboot la. mboot la wala sukkar bi la. sant yàlla rek lan la. waaw noonu la demee sant yàlla. lu xew ay xale lañ nekk Malika. di liggéey ànd ak ànd ak samay xarit may nit sumay doom yaay. aw ma ñu dul ñoom quoi di ñaan yàlla na yàlla dolli sutura diidu dara dañuy compétir mais man mboot mi mboot mi lii lii dara ay xale lañ di entraîner chaque jours war nañoo mën a def lu raw lii yàlla yàlla dolli sutura mais c'est tey ni nga def Boy Faye. waaw mais lamb la. def ko ëppali. lamb la. ñu ne déet ne waaye nga teg ci ki nga xam ne mooy caag. defatuma defaguma dara. dañ ma defagoo dara. defaguma dara dañ maa yónni yaa xam te ma yàlla na. ren millions yi daa bëri. waaw mais dara lamb la rek. yàlla bëri na sutura. waaw ana waa ana waa Malick. waaw ñu ngi fa di ma xaar. xanaa dinañ kontaan. waaw dinañ bëgg moom. waay Zengi nii waaw Baf Zengi nii. Zengi yàgg maar. waxoon naa la ko. lamb bokkul ak dara. gis nga lamb ji xoolal seesi ni mu dammee jëlal ma lii yàgg maar gis nga lii lii yëpp dafa damm ci ay sees waaye taxul làmb ji yàqu fexe nañ ba làmb ji yegg pour wan la publicu làmb ni ñu yaroo rawatina làmb simple tey nag ku ne xam na ne moo doon dimanche 21 mars 2 millions 500 ak kan Jax production général Malika wane boppam ndax ku daan booy fay génne obali final nga botti caaka fay ah général mi am na lu mu rax waaye nag liggéey la rek. lambi simple mel noonu tey da ngay neex le suba nga naqaree kon ñu ngi koy féliciter moom général di encourager Caaka Fay waaye Cheikh Diagne itam moo jël lese bi kon looloo fi amoon tey ak Jax production Equivox TV du mën a ñàkk xaar leen ko télé la boo xam ne daal sa portable nga koy porté di seetaan yàgg maar moo newoon ci film bi maa ngi lay bëggee di nuyu Balde di nuyu Elas waaye kenn du jib seen borom Petersen borom yére yu baax yi. yéere yu baax ay mayo ay yére yu jigéen ay tubay demal Petersen nga laajte jib seen du mën a ñàkk waaye maa ngi nuyu soppe yëpp yàgg maar Real laa sol jëlal ma lii xam nga man Real laa bokk capitaine Ramos waaw du mën a ñàkk mu ngi nii moom laa boot tey kon gars dama leen di jox dig daje kañ samedi ak kan Fallou Ndiaye mooy kan borom Ndiaye production fan arène nationale ay millions yu bëree bëri la fa teg samedi waaj leen ko Jax itam day ñëwaat kon bu leen ko fàtte bu leen ko jaawale mais samay fans nuyu naa leen nuyu naa képp ku doon suivre Equivox ca kaw ca kanam mais yàgg maar mu Cheikh Béthio Thioune maa kontaan ci yow lu mu metti metti nga dékku ko maanaam yow jàmbaar nga kon gars ba beneen yoon yàgg maar eh